bu sañoon askanu Sénégal yaakaar gi ñu am ak kóolute ba jël lépp dénk ko Ousmane Sonko mi nga xam ne mooy premier ministre du Sénégal moom it tamit mu joxoñoon askan bi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba ñu fal ko mu doon cinquième président du Sénégal moom Bougane Dany Gueye bu sañoon place boobu moom moo koy moom mais ndax mérité na ko ndax def na lu tax sénégalais yi wóoru ko déedéet saay bu xëyee lu Ousmane sunk wax ci lu baax moom ma ngay wër plateau yi ànd kook ay journalistam yi nga xam ne saay bu ñu xëyee seen plateau yàq ak wax lu bon tuumaal takkal régime bu bees bi nga xamante ne ndaw ñi ñoo am yaakaar ba fal leen ci premier tour Bougane Dany Gueye war a xoolaat boppam wala sax ay mbokkam woo ko ngir yedd ko ci jikko ju bon ji nga xamante ne na ko te du jikkoy góor moo tax Ousmane Tounkara bàyyiwul dara ci moom alerté na ko avertir na ko ci kàddu yi muy yëkkati di ko teg ci mbirum Ousmane sunk ak Sénégal gi nga xamante ne dañoo taxaw temm ngir rupture loole nag Ousmane Tounkara indi na ci ay leeral yu leer te wóor mbokk yi teewlu seen chaîne préférée seen njëriñ TV ñu ànd rek seetaan vidéo bi aimé ko partagé ko ngir ñu bari ñu féete ci réewum Sénégal ak bitim réew daal di ciy mën a. sa soxna yi goro biñ la bettee bettal ba ba mënatoo dugg sa kër goro yi xam nañu et la prochaine fois on va dévoiler son nom la nga def ba sa soxna si génn àddina ndax misère xam nañu donc xaw ma opposant ngay doon. xaw ma kat ngay doon tu n'es pas un opposant tu es un menteur on te connaît mais xamal ne on est prêt à te faire la guerre man de sama bopp lay wax man man on est prêt à te faire la guerre la guerre à la guerre man gëmuma li ngeen gëm man gëmuma ngeen toog fële naan nit ñi noppi leen nit ñi nekk fële di def seen i ay ñaawteef di def seen i ay accusations gratuites imbécile bi li mu accusé ko le premier ministre Ousmane Sonko aduna bi yëpp dégg nañ ko mu ne moom nekk sàcc moo gën nekk fenkat boo xam ne c'est certifié kan mooy fenkat bu ñu certifié Ousmane Sonko dafa fen ci mbiru Mame Niang mais Mame Mbaye Niang moom ci boppam wax na la ko Niang a confirmé ce que tout le monde entier a dit ñoom ñu comploté dem jëli ay juges yu leen neex teg leen ci place yu pour condamner le président Ousmane Sonko pour bu mu doon président loolu rek moo doon seen problème que lépp lu mën a xew ci àddina bi nañu fexe rek ba le président Ousmane Sonko bu mu jël nguur parce que il est trop strict parti pastif ñu bari ñu won ñu accéder au pouvoir li ko waraloon mooy soppeeku bu bees bi nga xam dana amaat muy rupture bo xam ne ña fi nekkon di boom di bumi di sàcc alalu sénégal di len nax ku ci melni bugan ak ñamu andal ak ñu melni ni ñom ci boppam dañu am mbettel ci faluk basiru jomaay fay xeeb biñ ko xeeboon ak Macky Sall mi ñu jàppoon ni mom ci boppam du fi mësa joggé lolu tax na tay ji mom bugan dal lepp moko tek teg bu fekkon ne deugal na boppam ànd ak ci coalition Diomaye bi nga xamante ne ñu bari xamoon na ne ñii ci boppam kenn mënu leen tee jàll premier tour waaye gëmu ko woon ndax yaakaaru ko woon ndax boobu jàpp ne na Macky Sall ca pexe ya mu nekkoon rek ca lay nekk def rek ay pexe yu tax kii di Bassirou Diomaye Diakhar fay wala parti ji Pastef du ñu jàll ci premier tour nga xam ne bu ñu demee deuxième tour ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk système bi bokk régime bi ñu àndandoo rek daal di jàll deuxième tour loolu nag na mbuus ndax yàlla dogaloon na Diomaye Diakhar Faye mooy doon cinquième président du Sénégal